combat bi passé est-ce que lébu yi kontaan nañu. waaw lébu yi kontaan nañ bu baax nag kontaan nañ bu baa sa bu ma la waxee dëgg rek kontaan nañ amateur yi ñoo kontaan kontaanul mais lébu yi kontaan nañ bu baax. mais combat bi ni mu demee neexu la en tant que champion. non non mosuma neex mosuma neex parce que man ndam moo ma gënal lu ma am mosuma neex ma ndiir suuraale ma nga saa si sama làmb. mais Quench bi muy ñëw indaale woo conseil yu bari ndax li nga bëree keroog arbitre siffle nga dox ci ko mais keroog mel dafa bëri calcul boo doon demee. adversaire yi ma doon bëreel dañu doon ñëw ñu daje wala ñuy arrière ma jëli leen yaa may dégg mais jéen mu ngi fi nekk di wax moom moo yëkkati lu xam ma song ko man mosuma fi duur benn mbër moom moo doon duma mbëri te dama ne ko woon dig ma respecté force te respecté na ma for force mais man su may encadrement nii lañ ma mos a yebee nii lañ ma mos a bëreloo niñ ma bëreloo loolu laa mos a bëre comprendre mais est-ce du yàq dara ci yoon wi. non yaaw si dara man li ñuy seet ci mbër am naa ko mooy public am naa ko bañ Iba Mar fii xaju ma fi. mais est-ce que keroog Quench warul woon a prouver ci combat boobu pour am yoon bu leer nañ. waaw parce que jéen ay mag ñoo ko yor man ay xale ñoo ma yor man boo yor sama endroit ñaari magasine muy père Moussa père Alioune Diop mais moom am gépp ay mag la est-ce que comprendre kon nag moom duñ ko conseil yëpp ko yow xam nga ne jéen mosul bëree noonu. jéen man rek la fi tesel taaw mais ñi mu fi tesel ñëpp amul ku mu si taaw ñi mu fi tesel ñëpp moo leen songi mais dañ naka boo songee Quench di nga di nga si am lu la bett moo tax mu ñëw taaw comprendre nga. mënoon jëlee wut sa responsabilité Quench comme ni ñu la daan xamee ci sa bëre. man nii lañ ma mos a man lii laa mos a bëre. non li nga bëre keroog xamee wu ñu noonu Quench. non non non pour que man mbër mosu mosu làmb mosul am. ma daw songa mbër wala duy ko dóor mbër mi day ñëw indi ay kurfañam ma jàpp ko mujjee moom dafa jàppoon ne moo ëpp doole parce que moo ëpp masse moo moo ëpp poids taxaw nañ si balance moo ëppee ma 4 kilos si biir combat bi loolu lañ moom lañ défavori mais bi ñu jàppantee xam ne ne góor dëgg la jàppanteel. mais combat boobu combat bu amateur yi amoon yaakaar la. Diène Kairé bi ñu jàppantee la pare pare si parce que bi ma yëkkatee mënu ma yëkkati la pare si làmba ji. lay foo jëm ko oh, oh, booy xool man maa doon man maa doon def ay action di waaye daanu. lay foo jëm moom. mais moom la raj man maay pour làmb waxoon na fi duma ma bëree moom moom dafa kese lool la yaakaaroon moom li mu yaakaar moom la fa fogul neen dootul bëre yow jeex na moom la man maay pour làmb bu dee public maa këpp fuuf déggoo ma de moom xamul lu moo si làmb bàyyi mbër la man suma ma mbër la mais ay suma ma moo daan diw moo daan diw dañuy daan ñeneen ñaa ngi si biir suuf ñeneen ñaa ngi dañu feebar loolu dafa. muy faat waaye lan doo xeex. boo mënee bëre xeex coono la maa waxoon loolu. boo mënee bëre xeex coono la si yow. lépp mu ngi fi jën keere bu indi woon lii mu man si lay xam ne lépp dëgg. Eh, commencé foo jëm. fu ma jëm géwal ma ay pour làmb ku ma làmb jox ma bëre yow lii yaaxul dara sama yoon dara dara. xoolal si Modou Anta. voilà man yooyu la nga may wax ma tontu. loolooy combat bi. yow yaa ma ko laaj moo tax ma la waaw. am na fi de. non mais attends mais loolu mooy combat bi. ñooñu ay Baye Fall lañ dañuy bëre boo ko ñëw jën keere mi ñëw taaw ser mel ni ngeen jàppal ragal la waaye ku wet ci Modou Anta buy waxati papaam nay bàyyi jën kere di wax mais boo waxee jën papaam lay tontu ne booy kere na bàyyi wax ji seen entourage ñëpp wax nañ yaayam rek moo waxul yaayam kese ñoom ñoo jekkoo micro yi ku ne ay tëgëkat ñëpp di wax ay fecca garama loolu amul sens du yàgg buñ dugg si géew bi tee sama tànk foo jëm fu ma jëm mooy moom wax na combat Modou Anta quoi voilà noonu la demee ay buur <laughs>